sama dëkk fii yow bi laa rase yow fii ngay di jàmbaar yow sama dëkk fii le 28 décembre nag dina mel ne tuq sa bënn taan ba réer ndax Ibrahima Dieng dina fa nekk restaurant Marème ku ne xam na Marème teg na pizza restaurant spécial Marème la la la restaurant sénégalais bi gën a riche mooy Marème bu sa ñëw ne ko déedéet du ma ko nangu bu sa day teew maam mbay njuug ñoom ñëpp ku nekk daal incha allahu rabbi sa soutien jot nga ko taala sekk évité la kon nag 28 décembre. biir Pisa ak jaman pop pop pop pop non non non du yondu jamais raté salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars léegi nag Faramareen doonatul Faramareen kese dafa nekk Faramareen production booy bii nii moom mooy fàllu moo nekk ci studio bi nii Wally sekk di ko may sens ak waa Faramareen production pour mu mën a collaborer ak ñoom képp koo xam ne bëgg nga génnee son wala waykat nga di xale di jëm di daanaan bëgg a ci wàllu show boo ci bëggee dugg nag Baye Zal ngay contacter woowal Baye Zal ci numéro incha allahu rabbi di nga ko jot te dina la dugal ci Faramareen production bu liggéey ak yow beneen bi ci des mooy yéen ñi may laaj Adidas Arena bee yi kañ lay disponible Adidas Arena bis bi ñëpp di xaar bee yi disponible na ci sit bi Adidas Arena la disponible waaye waaye dès lundi dès lundi dina disponible ci réseau yëpp yu ci benn Fnac ak yeneen ak yeneen réseau yëpp mais léegi léegi nii moom mi ngi disponible ci surtout Adidas Arena daa jël lien bi dugal ko sama bio TikTok lien bi sama bio TikTok ngeen click ko ci pour mën a jënd bay na gaaw lekk leen ko Adidas Arena dama bëgg ngeen lekk ko yéen faramaare yéen yeeg fu waaye mën a ne le 7 décembre Paris moo xewle Paris salle bu kenn mës sa joué Wally di la premier artiste africain bu fa joué xuma la sénégalais premier artiste africain mais le 7 décembre le 7 décembre dugg leen ci lay bi gaaw bi ngi sama biir TikTok gaaw leen jënd bi